jëf amul
lu dee fi fàttali ak lu dee fi roy ñoo fi ne lu dee fi fàttali ak lu dee fi roy rek fi ne yàlla wax na ba noppi jox rasulullah nee na yàlla wax na ba noppi jox rasulullah rasulullah yi jottali ci jamono rasulullah yi jottali ci jamono ña jamonoon teeg jamono boobale ña jamonoon te jamono boobale di ko jottaleen di ko jottaleente ba ci ba ci suñu jamono suñu jamono génn ñu ko war a wax ñu ko war a wax wax ko.
wax ko kon nag lu wolof di tubaab di wax pratiquer nekkoon nag li tubaab di wax pratique moom rek ka fi def moom rek ka fi des waaye li waroo fenn wax waaye li war a feen wax yépp yàlla wax na yàlla wax na ko li mu bëgg ku li mu ko def bëgg ku ko jëfe wax na ko wax na ko li mu bëgg ku li ko mu fi bëgg bàyyi ku fi bàyyi wax na ko wax na ko kon nag kon nag jëfe jëfe li mu digle li mu digle moo fi def moo fi des bàyyi bàyyi li mu tere li mu tere ñoo fi def ñoo fi def.
leneen ne leneen des kon nag ci loolu lay bëgg a waxee kon nag ci loolu lay bëgg a waxtaane ak yéen tey waaye du loo xam ne dama ko wax samp muy lu bees ngeen jàpp ko di ko jëfe waaye du lu bees lu mu war a samp ngeen jàpp ci jële ko fi di ko jëf fàttali la fàttali rek la
wa zakkir fa inna zikra tanfau lmuminina wa zakkir fàttali ne sunu borom dani Muhammad wa zakir fàttali fa inna zikra naka fàttali ndax fa inna zikra naka fàttali tanfau dana jëriñ tanfau dana jëriñ almuminina way gëm ña almuminina way gën way gëm ñi almuminuuna ñi gëm ñana almuminuuna nee na ñi gëm ñana mooy ñi nga xam ne gëm nañu yàlla képp te boole wuñ te dara duñ ko bokkaale nee mooy ñi nga xam ni gëm nañu yàlla képp te duñ ko booleeg dara bokkaale wuñu koog dara almuminuuna ñan almuminuuna ne ñana yàlla ne yàlla ni innama almuminuuna alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluuna alladina yuqimuuna alsalata wa mima razaqnahum yunfiquuna ulaika hum almuminuuna xaqan lahum darajatun inda allahi wa magfiratun wa risqun karim yàlla mooy xamal jaam yi nan la jullit di mel nee kat yàllaay xamal jaam yi jullit boobu mu tudd mooy wax nan la jullit di mel innama almuminuuna su ngeen bëggee xam ña gëm ñan nan la ñuy mel ne yàlla ne su ngeen bëggee ña xam ña gëm nan la ñuy mel déglu leen melo yi ma leen di tuddal mooy melo ku gëm yàlla su ngeen ko gisee xam ne kii mu'min la billahi wa rasul yàlla ne déglu leen melo yi ma leen di tuddal ku ngeen ko gis ci moom xam ne ni kii muumin la billahi wa rasuli mu ne innama almuminuuna naka jullit yi yàlla ne innamal muminina naka jullit te takkalakat te kat ne takk la alladina mooy gaañ a nga xam ne ne alladina mooy gaañ nga xam ni ida dukira ndem fàttalikoog na wala tuddeef na allahu yàlla suñu borom ne ida zukira ndem tuddeef na wala ndem fàttaleef na allahu yàlla wajilat jàq te tiit ne wajilat jàq te tiit qulubuhum seen xulubuhum seen xol
wa ida tuliyat ndem jàngeef na alayhim ne wa ida tuliyat ndem jàngeef na it alayhim ayatuhu ñuy jàng aayaam yi aayaatuhu aayaam yi di ñu di ko jàng zaadathum dolli leen aaya ja wala jàng ga ne zaadathum dolli leen aaya ja wala jàng ga dolli aaya leen aaya ya dolli leen aaya ya wala jàng gañ koy jàng wala jàng gañ koy jàng lu mu leen di lu mu dolli leen di dolli imaana imaanam ak gëm ak yàlla gëm yàlla wa yatawakkaluuna nee na wa yatawakkaloona alladina ña nga xam ne ba alla tey alladina ña nga xam ne ba tey yatawakkaluuna yatawakkaloona danañu sukkandiku danañu sukkandiku ala rabbihim ala rabbihim ci seen borom ci seen borom te bay seen te borom bay seen jàng moroomum jaam ñooñale ñooñale ñooy julli dëgg yàlla ne dëgg.
ñoo ñooy julli dëgg-dëgg te di dépensé te di dépensé ca la ba leen te la ma wër leen wërsëgale di julli di julli ca jàkka ya ca jàkka ya julli juróom julli juróom laa wax laa wax julli juróom ne julli juróom laa wax laa wax julli julli juróom juróom laa wax laa wax waaye du geneen waaye du geneenu julli ñooñale ñooñale ulaayika ñooñale ne yàlla ne ulaa'ika ñooñale dëgg dëgg dëgg dëgg hum ñoom hum ñoom xaqan ca dëgg xaqan ca dëgg al muminuun al muminuuna ñooy ñi ma gëm.
ñooy ñi ma gëm te yàlla nee na dencal naa leen lëfi tey yàlla nekk ñooñu kat dencal naa leen la lan laa leen dencal lu ma leen dencal daraja yu rëy dara yu yu rëy ak ëllëg lan ak lan njëggal njëggal ak lan ak lan wërsëg wërsëg woo xam woo xam ne ne kenn du ko rek kenn du ko rek ëllëg kon nag yàlla nañu yàlla def jullit kon nag yàlla na nu yàlla def julli yàlla nañu yàlla def jullit yàlla na nu yàlla def julli yàlla nañu yàlla def yàlla na nu jullit yàlla def julli al imaanu laysa bittaxalli wala bittamanni bal maa waqara fi lqalbi wa saddaqahu al amal liimaan du caagee ne da nga koy wax ci sa lammiñ wala nga mbubboo ko nee kat liimaan du càggeen da koy wax sa làmmiñ rek wala nga bubboo ko maa waqara fi qalbi mooy li sax ci xol wa saddaqahu te dëggal ko al amalu jëf gi ko ci nee liimaan mooy li sax ci xol te dëggal ko cër ñi koy jëf loolu mooy liimaan loolu mooy liimaan loolu moo di liimaan ashhadu an laa ilaha illa allah nee ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah dalika huwa al imaanu al kaamilu al mahdu al xaalis mais lii mooy liimaan gu ma sëkk bu sell bu wér gu wér gi yàlla bëgg gi yàlla bëgg loolu mooy liimaan yàlla nañ ko yàlla yàlla na ko yàlla may may leen
dafa fekk nag nee na dafa fekk nag
adduna bi adduna bi jaxasoo jaxasoo
jaxasoo gi mu jaxasoo yi nee na jaxasoo gi mu jaxasoo yi maanaam daal yóbbu nañu ba ñu agsi ci point boo xam ne mais yóbbu nañoo yóbbu ba nu agsi ci point boo xam ni
loo wax loo wax ñu gëstu ko ñu gëstu ko ak di ko tawi ak di ko taawi di ko seet di ko seet li yaleen ya ca dëppoog seen bakkan ya ca dëppoog seeni bakkan ñu fab ko ñu fab ya dëppoowul ak ya seen bakkan dëppoowul ak seeni bakkan ñu rotal ko ñu rotal ko
waaye dafa fekk koo xam ne kii yow yàlla rek la tax di wax waaye nag dafa fekk koo xam ni kii yow yàlla rek moo la tax di wax il faut que nga wax il faut nga wax ngir yàlla xaw ma nag kuy wax ngir jañ loo xam ne li ragal nga dikkam ci sa kaw xamul nag koo xam ni kii yaa ngi wax ngir jañ loo xam ne li ragal nga ak dikkam ci sa kaw wala ngay wax pour loo xam ne li yaa ngi taataan sa loxo pour mu tegu ci sa loxo wala ngay wax ngir taataan loo xam ne li bëgg nga mu tegu ci sa loxo yooyu yëpp man kaccet ma ci yooyu yëpp ne moom kat set ko ci set na ca wécc bokku ca moom waxuma ngir ëmb dara waxul ngir ëmb dara kenn waxuma it ngir suutaraat waxul ngir suturaal boppam yi waaye danaa wax ngir yàlla waaye dana wax ngir yàlla wax ngir yàlla ñu wax ngir yàlla ji nag ndegam alxaaji Maali nga ci mën ndax a El dara Hadj Malick ci mënul dara Keneen na ko keneen du ci mën dara kat
ku bëggul dégg yàlla bul ñëw ci ku ma bëggul dégg yàlla day booye ba bàyyi ku bul ñëw ci moom ku bëggul dégg loo xam ne ni moom la yàlla santaanik rasulullahi bul ñëw ci ku ma bëggul a dégg li yàlla santaane ak rasulullah bul ñëw ci moom boutique bu nekk marchandise ma fa nekk moom la borom di mën a jaay ne boutique bu ne marchandise ma fa nekk moom la borom mën a jaay soo bëggee jën demal ca marché soo jën bëggee jën demal marché jën soo bëggee marché yàpp soo bëggee yàpp demal marché yàpp ca Moustapha Mbaye ca Moustapha Mbaye soo bëggee géej soo bëggee géej demal marché géej demal marché géej soo bëggee leneen soo bëggee leneen demal ca marché bu demal ca marché ba mu ne sama marché man ne moom marché am El Hadj Abdou Marché am El Hadj Boppam, Malick.
marché am El Hadj Malick mooy boo xam ne mooy boo xam ni du ñu du ñu nëbb li yàlla du ñu bëgg nëbb li yàlla bëgg du ñu ca topp du ñu bànneexu ci kenn topp bànneexu kenn du ñu ca seet ku ñu du mere ñu seet ku leen mere du ñu seet taalibe yi du tey ñu seet seet caaku taal ceeb bi ci seen i saaku ceeb yooyu yëpp yooyu la yëpp su fekkee ne su fekkee ne moo tax moo tax seen xol du sedd ci seen ñoom xol du sedd ci ñoom bu leen fi ñëwat bu leen fi ñëw fii daal ku fi ñëw ni- fii ku fi dikk yàlla rek yàlla rek fab leen seen i fab leen xaalis seen i xaalis seen i ceeb seen i ceeb seen lépp seen lépp yóbbu ca seen yóbbu kër ca seen i xëj na ci yéen xëj na ci ndegam bëggu leen yàlla ndegam bëggu leen yàlla fii day muy marchandise bi wax fi yàlla fi dikk yàlla ngay dégg du ma samp sama bopp mais du samp boppam wacc yàlla wàcc yàlla du ma samp alxaaji du Malick sampalaaji Maalik wacc yàlla wàcc yàlla du ma samp Cheikh Sidi Ahmed Sidi Tijani Ahmed Tidiane wacc yàlla wàcc yàlla du ma samp Seydi du Aboubacar samp Sidi Aboubacar wàcc yàlla.
wàcc yàlla du ma samp du Rasulullah samp Rasulullaay wàcc yàlla wàcc yàlla lànk na lànk na du ma ko def.
yàlla rek lay tax ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قل وخل يوم محمد عليه الصلاة والسلام ne sunu borom dane Muhammad kul waxal yow Muhammad يا أهل الكتاب يين نيغا خامني يالا دا واتي وون تي يين تيري yaa ahlal kitaab yéen yàlla wàcc yéen woon ci yéen téere ووتي بو خامني بي ne woote boo xam ne bii جفالا dafalaa la دو قراء du xiraaka jafala ne jafala mooy woote boo xam mooy ne woote boo xam ne woo nga ko ñëpp woo nga ko ñépp sa añ sotti na su añ sa añ sotti nga rek génn ci mbedd nga mi génn ci mbedd mi ki nga xam ki nga xam ak ki nga ki xamul nga xamul nga dugal ci nga kër gi dugal ci kër gi bokk ak moom bokk ak moom ndën li ndën li kooku mooy kooku jafala mooy jafala ana luy xiraa ana luy xiraa ci la jógee tool ki ba la jógeel tool ba ci lay bayal ki lay bayal ki nekk ci biir ki nekk ci kër gi biir kër gi di sab surga di sab surga saañ sotti saañ sotti nga woo leen ñoom nga woo leen ñoom rek loolu mooy bokk ak xiraa ñoom loolu mooy xiraa yo woote bii nag woote bii nag jafala la jafalaal yaa ahlal kitaab yaa ahlal kitaab taalaw dikk leen yàlla dafa ni taalaw dikk leen waawu jamcu la nee waawi waaw jamcu la fu ngeen jëm fan ngeen jëm ila kalimatin ila kalimati jëm ci baat jëm ci baat sawaa in baynana sawaa in baynana man Muhammad man Muhammad ak ki dëkk ca Éthiopie ak ki dëkk ca Éthiopie ak ki ñu moom ca pirum ndari ak ki ñu moom ci piru ndari ak man mi nga xam ne Qurayshi yu ak la man mii Qurayshi yu te demoon naa ca déyaal ak yàlla te demoon naa deele ji baat yàlla boobu baat boobu maag Abdul Aziz maag Abdoul Aziz ak Ibou ak Sakho Ibou Sakho ak jaam bi ñu moom ak jaam bi ñu moom ñoo ci yemoo ñoo képp.
ci yemoo képp baat bi bana baat bi ban Allah na'budu illa allah Allah.
na'budu illa Allah bu ñu jaamu kenn bu ñu jaamu kenn ku dul yàlla wala nushrika bi shay'an bu ñu ko bokkaaleeg dara wala tey kat wala nushrika bi shay'an bu nu ko bokkaaleeg dara wala yattaxida bu jàpp wala yattaxida it bu jàpp baaduna lenn suñu ne baaduna lenn sunu ñu jàpp baadan lenn ci ñu jun jàpp baadan lenn ci nun arbaaban arbaaban ñu di buur ñu di buur min min dunillahi duunillahi wali si yàlla wari si yàlla bu nu ko def mukk wa in tawallaw ne yàlla ne ko wa in tawal soo leen waxee loolu soo leen waxee loolu ñu dëdd lan ñu dëdd lan tontu leen tontu leen ko xooloo wax leen ne bu leen bañu dem rek da nga leen wax fa xuulu na ngeen na nga leen ni yéen ñii lan yéen ñi lànkoon Ak ñi gannaaw ma see topp.
ak ñi ma topp ishadu seede leen ish ishhadu seede leen bi annaa naka ñu ñun ànd naa naka nun man Muhammad ak man ñi ma àndal Muhammad ak ñi ma àndal muslimoona muslimoona ñuy wa ñu incliné la ñu incliné lanu jox suñu walaan jox sunu wala yàlla yàlla lu ko neex lu def.
ko neex def ci nun bu ngeen bañee it man ñi ma àndal ci leen lu nekk su ngeen demee ne su ngeen demee ak man ne ak moom mi koy wax
lii ngeen fi déggee ndegam ba ngeen jariñ da ngeen koy fab ngeen am ful waaye ko jëfe ne ndagam bëgg ngeen jariñ lii ngeen fi dégg da ngeen koy jël employé ko jëfe ko waaye fay seeni oto waaye fay seeni oto yàq seeni nelaw yàq seeni nelaw yàq seeni soxla yàq seeni soxla ay li Abdou wax ay li ab ax tey jóge fi jóge fi mu jaar fi mu jaar fii fël ci fi fël ci ci fii Abdou it ab bi wax ko ba noppi wax ko ba noppi tëdd di noonu tëdd di noonu du jariñ dara du jariñ dara abdu du jariñ ñu ko dégg ana luy njariñ ana luy njariñ ma di ko jëfe mais mu wax ko ba noppi di ko jëfe ngeen di ko jëfe ngeen dégg ko di ko jëfe ma jariñu mu jariñu ci ngeen jariñu ñu jariñu ci ma fàttali mu fàttaliku ci ngeen fàttaliku.
mu fàttaliku ci walla wala ma wax ko mu wax ko ba noppi ba noppi génne tànku bu génn tànk bu yéen ngeen jëf yéen ngeen jël ko jariñoo ji jariñoo ji ko tedd àdduna tedd àdduna tedd laaxira tedd alaaxira abdu abdu torox ca kanam torox ca yàlla kanamu yàlla ëllëg da ngeen di fab li nga xam ne lii baax na da ngeen di fab li nga xam ne lii baax na ngeen dem di ko jëfe taxaw ci ci seen digganteeg seen bopp ngeen dem di ko jëfe taxaw ci seen digganteeg seen borom te ngeen xam ne dundu adduna gi du te dara te ngeen xam ne dund adduna gi du dara dafay jeex rek day jeex rek ana kii tëdd ci suñu gannaaw ne ana kii tëdd léegi suñu gannaaw si Kana, si xaaj nu mu Maalik tudd?
kat na mu tudd Haj Malik ne xaaj Maalik la tudd nekkoon na fi nekkoon nag nekk ci li neex yàlla nekk ci li neex yàlla mu toog benn bés mu rek toog benn bés rek ñëpp wër ko ñëpp wër ko sama borom ne sama yoon suñu ne borom ni sama yoon nekk fab yóbbu rek fab yóbbu ak rek lu ngeen mën a ak def lu ngeen mën a def soxla naa ko tey soxla naa ko tey mënu leen ci dara.
mënu leen ci dara
mu fab ko mu fab ñëpp di xool ñëpp i xool ñu wuti perkaal ñu wuti perkaal andi ndéem wut ndéem andi wëtteen indi wëtteen sang ni ñëpp sang ni ñëpp jullee ni ñëpp jullee ni ñëpp suul ni ñëpp suul ni ñëpp ñaan ni ñëpp ñaan ni ñëpp dëdd añi dëdd añ
mi ngi nii ne mi ngi nii du fa fekk lu dul la mu jiitaloon te kat doo fekk nag lu dul la jiitaloon te daana toog ba mu yàgg mu ne ngal la maarig ak ñetti fan yi bàmmee te daana toog ci dundam ba mu yàgg mu ne ngalamaali ga ñett fa ni bàmmee la
Cheikh Sidi Ahmed Tijani noonu Cheikh Sidi Ahmed Tidiane noonu rasulullahi noonu rasulullahi noonu Sidi Aboubacar noonu Sidi Aboubacar noonu Haji Mansour ngi fi Hadj tëdd Mansour a ngi fii tëdd noonu ñun ñëpp it ñun ñëpp it fii rek la ñu fii rek la ñu jëm te kat te kat loo fa jiital loo fa jiital soo fa demee soo fa demee doo ko doo fekk.
koo fekk nag ah seetal ma waaju waaju bindu fa sek yóbbu ko ca deyaaw ne nee na seet leen ko rek ku jëloon seet seet nga bind foo seet yóbbu beewa te mosuloo fa dañ si te dara mosoo faa denc dara toog ba huit heures toog ba huit heures nga dem ca kees nga dem ca kees soo wattuwul soo kaso wattu fekk la ci waxuma jël xaalis waaye kaso la koy fekk
noonu rek la mbir mi noonu rek la mbir mi dem
la ñu àndandoo nanu bokk àndandoo ñun ñëpp ñu jéem a ragal yàlla ñu jéem a ragal yàlla te topp ko te topp yàlla te di waxante te di dëgg waxante dëgg te ànd ci te dëgg ànd ci dëgg dëgg dëgg du wàññi du wërsëg wàññi wërsëg du tax a dee du tax a dee te sa dee te sa jotul.
dee jotul
te itam kat yàlla soxla na ku ko waxal tey ne yàlla kat soxla na ku ko waxal ñi mu jox xam-xam ba noppi ñi yàlla jox xam-xam ba noppi ñi mu joxul xam-xam waxuma leen ne ñi mu joxul xam-xam waxu leen waaye yàlla tànn la ci sa biir ci sa biir yi bokk waaye yow yàlla tànn la ci sa biir bokk tànn la ci saw xeet tànn la ci saw xeet
abal la ci meloom yi benn abal la ci meloom yi benn boo xam ne dana la tax a tedd boo xam ne dana la tax a tedd teg la ci kanamu doomu teg la aadama ci yi kanam doomu aadama yi loo bëgg ñu loo defal la bëgg ñu defal la ko loo wax ñu def loo wax ñu def ko doonte li du dëgg doonte la du dëgg sama borom jox la boobu suñu la borom ci jox la boobu cër teranga bi ni mu teraanga bi ni mu day nga jënde nga jënde ko sa bànneexu sa bopp bànneexu bakkan wala lu neex wala nit.
lu neex nit wala wala ragal ragal ba doo wax ba dëgg doo wax dëgg doo digle doo dëgg digle dëgg doo santaane doo dëgg santaane dëgg lépp lu ñu def lépp lu ñu def yàlla bañ ko yàlla bañ ko nga ànd ci nga ànd ca mu neex la mu neex la ngir sa bakkan ngir sa bakkan wala lu neex wala ku la lu neex neex ku la neex doo dara doo dara te loolu rek a xew ci jamono te kat loolu rek xew ci jamono kenn waxalatul lislaam dara kenn waxalatul lislaam dara kenn waxalatul yàlla dara kenn waxalatul yàlla dara kenn waxalatul muhammad kenn dara waxalatul muhammad dara ku ci nekk ku ci ne yaa ngi samp sa yaa bopp ngi samp sa bopp di di wut mbooloo wut mbooloo di wut lu ñu la di jox wut lu ñu la jox nga taxawu sa bopp nga taxaw sa bopp ba mu sotti ba mu sotti yàlla dara yàlla dara lislaam dara
la in kaana ma bil kaffi diinun fa kaasidun wa in ziida raun bada maddin fa rabixu likulli qatilin naixatun yanaxnahu yanaxnahu walaysa ala diini lmuhaymini naixu Cheikh Alxaaji Omar la ñu wax ni moo ko wax radiallahu ne baytu yooyu le cheikh alxaaji omar fuuti radiallahu taala anhu la ñu wax ni moo ko wax wala boog kenn ci ñu baax ñi wala su fekkee waxu ko it benn ci kenn ci ñu baax ñu wax nee na lépp loo xam ne li accident dal na ci koom ne lépp loo xam ne lii accident dal na ci koom
ñépp a ngi ko taxaw di ko jooyal ñépp a ngi taxawal di ko jooyal waaye diine ji waaye diine yàlla yàlla kenn kenn waxalu ko dara kenn jooyalu ko kenn waxalu ko dara su sëriñ bi ñëwee bu sëriñ bi ñëwee jox ma lu ma yóbbu ci samay taalu jox ma loo yóbbu ci samay taalu bi jox ma lu ma yóbbu ci sama jox njaboot ma lu ma yóbbu ci sama njaboot jox ma lu ma bayee ji jox ma lu ma bayee ji jox ma lu ma sàngoo jox ma lu ma sàngoo ji waaye waaye diine ji diine ji kenn waxalu ko kenn dara waxalu ko ku ne yaa ngi wax ku ne yaa ngi wax di ca jële di sa jële di def ci sa def poos sa poos te li la tax di te li woote leen tax di woote ba ñu fekk si ba ñu fekk waxaloo ko dara.
waxaloo ko dara kat da nga kamafu la nit ñi rek nañu dollee góor góorlu nee na nanu doolee góorgóorlu waxuma ne dindi leen seen loxo ci adduna waxuma ko de ne moom waxul ni na ngeen dindi seen loxo ci àdduna waxu ko kenn waxuma it ne kontar leen kenn waxul it ñu kontar leen kenn waxuma ne yëkkati leen kenn waxul daaneel ni kenn yëkkati leen kenn daaneel kenn waxuma kenn nit ne ko diw la ko yàlla defal xeex ca ba mu dañ waxul kenn nit ñu ko diw la ko yàlla defal xeex ca ba mu deñ ku nekk poste ba ñu la dénk ku nekk poste ba ñu la dénk la koy baaxal la koy baaxal ak di ko tax a taxaw ak di ko tax a taxaw yaa ngi koy doxal yaa ngi koy doxal man itam moom it poste bi ma poste féete bi mu féete lii la koy baaxal lii koy baaxal moo koy defal moo koy defal il faut que mu wax il faut que mu wax loolu lañ ko fi tege waxuma ci poste jàmbur bu mu waxul nekk ci di ca poste fay wala mu jàmbur bu mu di ca nekk tedd dara di ca fayoo ko tedd yooyu mu ne ci waxu ca dara waaye doo fonk sa poste waaye doo fonk sa poste ma fonkale la ko ma sax fonkule la ko sax nga ne man nga ne ko nag sama poste poste am moom naa ko bàyyi na ko bàyyi bu mu ko bandone taxaw bandone bandole du ma ko def kenn du ko mos tey kenn jaralu ma kenn jaralu ko ko du ndey ko du def bàyyi mu- du kenn baay jaralu ko ndey jaralu ko xarit ja kenn jaralu ko du ko defit mu
ni nga libéré ba mën a taxaw li nga li nga bëgg a taxaw neewaay yow kay ni nga libéré ba mu mën a taxaw li nga bëgg a taxaw doo ma xoqatal ci dara ba tax man tam li ma war a taxaw ma nee ma kat ko def kenn booy jaralu boo noppul doo ko xoqtal ci dara ba tax li mu war a taxaw du ko ma.
taxaw kenn manu kenn mënu kenn manu kenn kenn mënu kenn ma kenn mënu
ndax nit da nga koy jéem a nax ci yi nga xam ne moom lees li nappe ndax yii yii am mooy nit da nga koy nax ci yi des di napp doomu aadama mu bëgg ko nga nax ko ci napp ko jàpp ko te li ma wax yéen ñii sama bokk di taalibe ma nekk yéen ci Tiwaawan laa ko wax te ne lii muy wax yéen ñi di bokkam nekk di bokki taalibeem dëkk ak moom ci Tiwaawan la koy wax lëjaluma ci kenn am ñi mu dëkkal fii de kenn kum ci la jël amul dugguma ci néeg jabari kenn laaj ko luy sa mbiru jëkkër ak lu mu lay jox dépense duggul ci néeg jabaru kenn laaj ko luy sa mbirum jëkkër ak lu mu lay jox dépense na ngeen nekk lëjalu ma leen ne lu ngeen am jox leen ma lëbalu lëjalu leen it lu ngeen am jox leen bayu leen ma fab bayu leen it mu fab fabuma seen i dugub fabul seen i dara laa leen amee dara la leen amee yéen taalibe yi laa yéen taalibe yi la ak ñi dëkk dëkk.
ak ñi dëkk dëkk lu dul lu ci neex nit lu dul lu ci neex ni kon nag ndegam yéen la ndegam yéen la waxuma la kenn waxul keneen ndegam yéen la dëkkeel nii yéen taalibe yi ëmbalu ma leen dara nee yéen taalibe yépp ëmbëb ëmbalu leen dara loo xam ne dama naan maam Demba loo xam ne daal maam Demba joxoon na ma mbubu joxoon na Demba ma mbubb démb wala téeméeri dërëm.
wala téeméeri dërëm.
yenn dëgg yi yenn dëgg yi bu ma ko wax du ma ko ko lànk na nee lànk na ëmbalul kenn dara ëmbul sa xalas kenn taalibe yi ci kaw gi it noonu taalibe yi ci kaw gi it kay noonu fabuma ci fasu fabu ci fasu kenn bojju ma ci sax bojj ci dàqum kenn sama baat ko baatam ko ca kaw laay ca kaw lay wax xam ngeen koy xam ngeen koy
lëjalu ma leen ci seen dara lëjalu leen ci seen dara lu ngeen def yéen la neex lu ngeen def yéen la ne waaye waxuma leen waaye waxu leen dara dëgg la wala de ndax dëgg la dëgg la kay kon nag bi ngeen yaakaaree alxaj Malik waaye waaw kon nag kay bi ngeen yaakaaree xaasimaali yaakaare wu leen ma ne yaakaarewu leen ko ma dindi alal jox mu leen dindi alal jox leen awma ko.
amu ko yaakaaru leen ma yaakaaru leen ko ma jox leen dara mu jox leen daraja awma ko amu ko nu ngeen ma lu yaakaar ngeen ko yaakaare ñu ngay dem ci Abdul Aziz ñu ngay dem ca Abdoul Aziz wala njabootu Seydi Haj Malik ga ca Tiwaawan wala njaboot ñu ngay dem ci njaboot Sidi Hadj Malick ci Tiwaawan lu ngeen fi wut lu ngeen fii wut si dégg jégg li ngeen xam ne li ngeen xam ni moom la yàlla bëgg moom la yàlla bëgg yonent yi bëgg yonent yi bëgg ko mu daan ko wax mu daan ko waxe di ko jëfe di ko jëfe ñi mu fi ñu bàyyi ngi fi bàyyi woon di ko waxe di ko waxe di ko jëfe di ko jëfe ba ñu fekk ba ñu leen fekk li waaw ngeen ñëw na ngeen ñëw nag ñu wàcc yàlla ñu wàcc yàlla indil leen plan wu adduna indil leen plan wu adduna di leen ko di tërala leen ko tërala di leen ko di doxala leen ko doxala wàcc yàlla wàcc yàlla yi ji nga xam di ne nga xam ni moo taxoon moo taxoon ngeen wut si ngeen wut si kon soo lëgee nañuy kon def su ak yéen ëllëgee nañuy def ak yéen ci kanamu yàlla
jëppeente rek ne jéppante rek
yawma yaaddu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittaxadtu maa rasuli sabila ya waylatee laytani lam attaxid fulanan xalila laqad adallani an aldikri bada id jaani wa kana alcheytanu linsani xadula ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون لجيم لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد واذكر فاتلك اليوم محمد صلى الله نعم.
عليه وسلم sunu boroom dafa ne waskur fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam واذكر فاتلك اليوم عبد العزيز waskur fàttalikul yow Abdul Aziz واذكر فاتلك اليوم مدلوب waskur fàttalikul yow Omar Lo wazkur fàttali wazkuroo fàttaliku leen yéen ñëpp ñi fi waskuroo teew ak ñi teew fàttaliku leen yéen jaam ñëpp ñi teew ci place bi ak ñi fi teew yow ma yaaddu bés ba nga xamee ne dana mat yow ma yaaddu bés ba nga xamee ne dana mat azalimu aji tooñ te tooñul kenn lu dul boppam allah li mu aji tooñ joo xam ne tooñul kenn ala boppam rek la tooñ yadayhi ala yadayhi ne ala yadayhi matt loxom wi matt loxoom wicca naan ca dëgg dëgg naan ci dëgg-dëgg su ma xamoon su ma xamoon lii Abdul Aziz Abdul Aziz ni leen di meloon li lay melam ak fii la ma ak fii la ma jëm billahi kon billaay kon duma ko topp duma ànd ak moom dama koy rey na ma sànni dee ca xaj.
dama koy sànni ci àll ba dee naa wet lu ma am jox naa ko ko te tànk dama ca dee dëgg dëgg su ma yëgoon ci dëgg-dëgg su ma yëgoon ndegam teguma ci yoon ndegam teguma ci yoonu yàlla damay seeti Bachir damay Diop.
seeti Bachir Diop mu xamal ma mu xamal ma li yàlla bëgg li yàlla bëgg ak yonent ak yonent bi ma jaar ci ma jaar ci.
ndax ma mucc ndax ma mucc su ma tey xamoon ci ni mbugal nii rek la.
su ma xamoon ni nii rek su ma la ànd ak Abdul billaahi duma ànd ak moom mu ku rey na ma yàlla ne yàlla ni le lañ yem fa akumul yow ma rëccu beeg waaye matal ko ma ne yow xolo bi du jëriñ moom dara de fii mu ne daal yow mi yow mi yow ñii ñii ñu toppoon ñii ak yéen ñi toppoon ñu fii di xuloo du jëriñ dara nag tey teer ngeen i zalamtu yé- tooñ yéen a tooñ yéen a tooñoon rek annakum fil adab mustarikuna mbaam man li yéen ma ñëpp xam ci daal léegi si daal sawaraa gi nii ñi ñu toppoon ak yéen ñu toppe woon ñëpp te ñu sànq leen adel bi ci biir sawar biir. dana am yi day am kat alquran la yàlla lu nekk ñaar la ca biir ne yàlla lu ne ñaar la ci biir léeg-léeg ngeen gis ñaar ñoo xam ne ne léeg-léeg ngeen gis ñaar ñoo xam da ne ngeen di wax ni man day diw xamu nu mu teqalikoo diw da ngeen naan man day diw na mu teqale ko diw xaw ma ko kii nga xam ne kii nga xam ni seeni jabar yee daan ànd seeni jabar yee daan ànd suñ dee xotti mbase suñu leen xotti mbasañ ñoo koy ñoo niroole nuróole basañ suñ dee euh, ñaw it ñoo ko ñoo bokk koy nuróole jékki-jékki jekki-jekki rek teqalikoo nii teqalikoo nii soo bu ëllëgee ëllëgee am na sëriñ soo am xam na sëriñ soo xam ni noonu la ñuy def noonu la ñuy def ak seeni taalibe seeni taalibe ca kanamu yàlla.
ca kanamu yàlla jàppante teeru baat bay bëgg a reyante rek billaahi lay gëm a xam nga su ma xamul lii waxuma topp waaye kon du ma la xam nga naan ko man boo yëgoon dooma topp yàlla ne leen noppalu leen Kooka la- yow ki ñu toppoon tooñ nga ki ki la toppoon sànq nga ko andi leen dugg bi sawara rek du sëriñ yëpp du sëriñ yëpp sëriñ boo xam ni sëriñ boo xam ni daf la won boppam daf laa woon boppam bañ la won yàlla bañ laa woon yàlla bañ la won li lay bañ jëriñ laa woon li lay jëriñ ñàkk ànd yu ci ñàkk dëgg ànd ak yow ci dëgg kooku la ñuy wax loolu kooku la yàlla wax loolu li alquran alquran dafa am benn nit bu def benn fee dafa am benn nit bu def benn fee day am benn nit rek day ne day am benn nit bu def benn benn jëf benn mu def ko sama borom wàcce ci la sunu borom wàcc ci lëf
ngir ka ko defoon ngir ka ko defoon aaye ba nekk fa rek aaya ba ne fa rek ñu toog ba am nangami seekal ñu toog ba am nangami seekal seekal ay xa mooy xarnu seekal mooy mooy ak- ak- xarnu mooy xarnu par téeméeri at yu par nekk téeméeri at yu nekk mooy seekal mooy seekal par téeméeri at par yu nekk téeméeri at yu nekk ci arab ci arab moo di xarnu mooy xarnu su ko defee su ko defee kenn ca troisième seekal ba kenn ca troisième siècle ba jëf fee boo xam ne niroo nag fee ba taxoon aaye ba wàcc jëf fee boo xam ne nuroo naa fee ba taxoon aaya ja wàcc aaye ba dal di diri mbiccam it ci kaw aaya dal di diri mbiccam ca kawam
na mu ko diree woon ca koko sax na mu ko diree woon te ka ko sosoon tax ñu wàcc aaya ji donte la jëmm yi dafa wute doonte la jëmm yi dafa wutey fee bi benn fee bi benn jëf ci benn la
kon nag ne kon nag nañu góorgóorlu nanu góorgóorlu bu baax a baax bu baax a baax eh yal nañu yà- yal na ma yàlla dimbale dimbale nee na yal na ko yàlla dimbali dimbali nu dimbali ñëpp waxuma ngeen xeex kenn ne waxul ngeen xeex kenn waxuma ngeen xuloo kenn waxul ngeen xuloo kenn waxuma ngeen fekk nit ca la ko yàlla jox ngeen xeex ca moom waxul ngeen fekk ni ci la ko yàlla jox ngeen xeex caak moom dama leen wax ne daal dafa leen wax ni daal diine ji diine ji am leen fit am leen fitu di ko di pratiquer ko pratiquer di ko taxaw di ko taxaw di def li mu di def bëgg li mu bëgg li mu bañ li mu bañ ngeen bàyyi ngeen bàyyi loolu du yàqu loolu du xarit yàq xarit du du yàqu xarit yàq ak xarit du xañe du wërsëg xañ a wërsëg du tax nga du dee tax nga dee
loolu moo di moo di xel ne looloo dim xel
nañu àndandoo nee nañu àndandoo
àndin bu rafet àndeen bu rafet bokk ndey bokk ndey bokk baay bokk baay yéeneen te jàmm yéeneente jàmm di waxante dëgg di waxante dëgg ku nekk yéene sa morom ku lu nekk baax yéene sa morom lu baax foo gis sa morom foo gis sa morom muy yow muy yow fu mu la gis fu mu la gis di yow di yow di rek laa wax li rek la wax moom te ñu boole xol yi nanu boole xol yi yal nañ ci yàlla yàlla ci dimbali yàlla dimbali yàlla ko mën na yàllaa ko man yàq yàq yi dafa bari léegi ndax yàq yi dafa bari waaye yal nañ yàlla dimbale waaye yàlla nanu yàlla dimbali diine nee diine sallallahu alayhi wa sallam nee na sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ca jamonaam dafa waxoon ca jamono addiinu bada gariban wa sa yacuudu kama bada Seydil Haj Malik am na ci bayti bu ci wax ñu ne mu ne yonent bi ne diine dafa feeñoon ci tumuranke ne yonent bi dani diine dafa feeñoon ci tumuraan neex na gëm di ne neex naa gëm di amoon na jamono ci yooyu jamono ku wax baatub laa ilaa ñu ñu dëpp la buntu fetal ne amoon na ca booba jamono ku wax baatu laa ilaha illa allah ñu dëpp la buntu fetal ñu dem ba nga xam ne kenn du ñemee noonu ñu dema dem de kenn dañu may noon suul woon Seydina Omar ibnul Xattaab yi sur surangoon surlwoon sidna Umar ibn Xattaab nodd kenn du ko jëre ci kenn di ko dégg nodd kenn du ko jëre ci ca kaw nit di ko dégg suul woon moom alxuraan dañ koy yammat ci biir su néegi doon rek moom bu dul woon moom alxuraan ci biir néegi lañ koy yemmat keroog ba mu tuubee keroog ba mu tuubee dafa ne gaañ dañu gaañ xanaa Muhammad li muy woote du dëgg waaye xanaa Muhammad li muy woote du dëgg ñu ne ko ah kay ñu ne ko ah kay mu ne lu tax ngeen di na mu ne nodd ci ci ngeen gamb di yi nodd ci gamba yi nag génnu leen génnu leen ñu ne ko ragal ñu leen ne ko ragal nit ñi mu rek ne sama jaasi jaa ngi mu ne nii sama jaasi jaa ngi na nii ñëpp génn na ñëpp génn wax leen allahu wax akbar ca leen kaw allahu akbar ca kaw ku ci wax dara ku ci wax dara ma teqale sa ma bàtt teqale baatam ak yaramam
dal di fab jaaseem dal di fab jaasi dem ca kaaba dem ca kaaba ga ne ku bëgg ni ku bëgg sa jabar di tëñ sa jabar di tiiñ wala say doom di jëriñ wala say doom di jëriñ ñëwal tey fii ñëwal tey fii
yonent bi ne tumuranke googu mu amoon nag yeneen ci bi ne diini tumuranke googu mu amoon nag danañu dem ba mu tumuranke danañu dem a dem ba mu tumuranke ak si nañ ci agsi nañ ci nag boo xamee ni soo xamee ne kenn ñemewul wax ci diine kenn dara ñu may tudd wax ci diine dara léegi ñemewoo dib sëriñ ñemewoo sax jàng benn ayal xuraan ne jub sëriñ ñi may wax sax jàng benn aya alquran na ko yàlla bëggee firi ko na mu ko waxe ñeme wax benn xaju ñi may wax benn hadis na ko yàlla bëgg soo ko waxee soo ko waxee ñu ne dafa bañ ñu ne dafa bañ di Wala dafay contre.
wala dafay contredire tax tax kenn dootu wax kenn dëgg dootu wax dëgg kenn dootu ne kenn yàlla dootu ne ne yàlla ne yonent bi yonent bi ne naka diine naka ji diine yi def kon te kat diine du tarax kon ñun jullit te ñooy kat torox diine kat moom du tax sax mu toroxet ne ñun jullit yi bu àggee foofu nooy torox yàlla moo amee diine ne yàlla amee diine
ku ko defulit ku ko def yàlla tukkalagul ak yàlla tukkalagul adduna bi du ñàkk moos du ñàkk moos la yonent bi waxoon la yonent bi waxoon لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله du dañ di ñàkk yonent bi ne du du dañ di ñàkk am du dañ moos di am ay kuréel wala benn benn ay ci kuréel ay kuréel wala benn benn ci kuréel yoo xam ne yoo xam ni li yàlla bëgg li yàlla bëgg danañ ko taxaw danañ ko taxaw ak lu leen ca mën a ak lu fekk leen ca mën a fekk ba yàlla dikk ba nga yàlla dikk ak mbir maa ngi ñaan man bokk ci nee day moom ci ñooñu la bëgg a bokk waaye daal bëgg la bokk ñi ni ñu yàcc rek bàyyi fi alxuraan wala teeru naa ci ñaan naa yàlla pour mu boole ne walanteeru na ci ñaan na yàlla mu boole ko ci ñooñu te it te it
am naa ci fit bu baax a baax am na ci fitit bu baax a baax xaw ma luy xew tey su ma jógee ba dem ci sama néeg xamul nag luy xew tey bu jógee ba dem néegam xaw ma damay dem dee léegi xamul day dem dee léegi wala ma dee fii su wala mu neexee dee yàlla fii su neexee yàlla lu mu ci doon lu mu ci doon kontaan naa ci kontaan na ci waaye nag waaye nag kenn mënuma jënd ci dara kenn mënu koo jënd ci dara de aaruma ci sama bopp yàlla ma ci ne aaru ci boppam yàllaa ko ci aar duñ ma jënd ci jigéen duñu ko jënd ci jigéen bi duñ ma jënd ci dara duñu ko jënd ci daraje duñ ma jënd ci duñu alal ko jënd ci al na mënu ko xaw ma la ëllëg na xamu ko waaye ba fi mu toog de kenn mënu ko
li yàlla bëgg nag nee li yàlla bëgg nag il faut que ma di ko il faut mu di ko wax ndax mooy rôle bi ma war a suy ndax kat loolooy rôle bu mu war a suyee moo man suñ ma yaakaaree ci yàlla nee waaw bu ñu ko yaakaaree ci yàlla
ma dem ci bureaucrate yi mu dem ca bureaucrate ya lëjal leen fa lëjal leen fa wala ma dem ca Thiès wala mu dem ca Thiès fekk foofu nit ak métier am fekk fa di teg métier te man dañ moo xam ne laaj ma digg ma te jóg moom dañ ko doon alaaj maay ko ju dañ ma war a laaj ci dañ diine ko war laaj ci diine ji ma lëjal mu leen lëjal leen fa naka sama pexe naka pexeem tooñ naa leen ne tooñ na leen te def mooy loo te xam ne deful dëgg mooy luy deful luy dëgg kon dëgg gaa ngi nii ma ne dëgg gaa ngi nii mu nekk di ko wax ku mu neex ku mu neex mooy lii mooy lii toog ci jàkkay Xaaj toog Malik ci jàkkee Xaaji Maalik Xaaj Malik nekk nii ci ma asmaay gannaaw ni ci gannaaw malaaka yi di toog malaaka yi toog ci mbagam ma naan yàlla ne mu naan yàlla ne Yonent bi ne.
yonent bi